asalaamaaleykum mbokk yi déglu daleen nag jàmm Amadou Ba dàq nañu ko wala dàquñu ko ca APR fële nga xam ne nag moom mooy ca Parcelles Assainies tey ji autorikaay bii di Sud Quotidien jiixi jaaxa bu rëy de la ci am la ko waral moom mooy ne sa benn ñoom ñooñu di waa Sud Quotidien dañoo jot nag benn communiqué goo xam ne daal ginnaaw benn assemblée général bu APR bu Parcelles doon amal ci la ñuy daal di fësal seen kàddu wax nag ni ñoom daal kii nga xam ne de moom mooy Amadou baax nekk joriñ gu ñu dénk wàllu sénégalais ya nekk ca bitim réew ak tamit affaire affaires étrangères moom de daal dinañu koy jëlee ca poste nag gañu ko joxoon euh, foofu nga xam ne de moom mooy ca APR foofu nga bii di ci quotidien mi ngi ñu ci yokk dañu xamal ne ci saa si la ñu jot nag beneen bataaxal boo xam ne kii di coordonnateur bu COJER euh, ca Parcelles Assainies moom moo ko daal euh, fësal moom nag ci biir communiqué googu waxuñu fenn ne dañoo dàq ki nga xam ne nag moom mooy Amadou Ba ñoom kay la ñu daal di xamle moom mooy ne bëgg nañu ñu daal lii di Sud Quotidien ne nag jiixi jaaxa de am na ci wàllu gini mel ndaxte ñii ngi wax ne dañoo dàq ki nga xam ne de moom mooy Amadou Ba ñeneen di wax leneen ki nga xam ne nag moom mooy Toumani Diallo moom mi nga xam ne ci biir colikaay bii di Sud Quotidien ne teewe woon na nag ndaje boobu nga xam ne daal ñu ngi ko doon amal ca Parcelles Assainies te kii di Mbaye Ndiaye sax moo ko jiite woon ña fa nekkoon bëriwuñu woon wante moom daal di ne xamle ne ci wàllu ndaje boobu nag kii di Mbaye Ndiaye moom moo fa daal di wax ne ki nga xam ne de moom mooy Amadou Ba ba ñu koy tabb mu daal di nekk coordonnateur bu APR ca Parcelles Assainies loolu moom élection yee ko waraloon comme élection yi nag jeex na léegi kay day delluwaat nekk rek simple responsable wante moom moomu di euh, Toumani jàlloo daal di ne xamle ne Amadou Ba moom mooy wéy di nekk nag coordinateur euh, bu APR foofu nga xam ne de euh, moom mooy ca Parcelles Assainies ci biir colikay bii di les Échos Alioune Badara Diouf nekk député moom it bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñoo taxawaloon assemblée générale bi foofu nga xam ne moom mooy ca Parcelles Assainies moom it daal di ne weddi kàddu yi wax nag ne dañoo dàq kii di Amadou baax ca bopp APR ca Parcelles nii muy daal di xamle ne loolu moom musuñu kaa waxtaanee ci biir seen assemblée générale boobu moom moomu sax di Amadou Ba culikaay bi di direct news daal di nay jokkoo ak moom wante moom ma ngay ñàkkal fayda sax la nga xam ne nag moom moo jóge ci li nga xam ne daal moom mooy assemblée général bu APR ba nekk ca Parcelles ndaxte moom daal ne gis ne Mbaye Ndiaye moom moo ko doon amal te nag ña fa nekkoon sax bëriw woon coowal troisième mandat bi culikaay bi di Sud Quotidien bi ngi ñu xamal ne dafa mel nii ne dafa tàmbaliwaat tey ji sax euh, ñu ngi ñëwaat ci kàddu yi nga xam ne euh, professeur pap Ogo sec moom moo ko daal di fësal jëmale ko ci wàll gi ni mel moom moo nekkoon ganub émission bii di objection fii ci biir rajo Sud FM na naqarlu nag li tax daal ñuy waxtaanee waat jëmale ko ci li nga xam ne nag moom mooy wàllu troisième mandat bi moom moomu a di enseignant chercheur ca faculté de droit et de sciences politiques ci université Gaston Berger bu Saint-Louis daal di ne xamle ci wàllu coowal troisième mandat googu waa conseil constitutionnel ñoom dong ñoom rek ñoom ñoo ci war a mën a indi nag ay leeral te bu boobaa nag dinañu ko def su wax waxtu si jotee ci biir colikaay bi di tribune Mame Mbaye Niang moom mooy fësal ay kàddoom di xamle ne nag coowal troisième mandat bi kii di Mahammed Boun Abdallah Dionne Mbaye Ndiaye Amadou Ba ak tamit Mimi Touré ñi nga xam ne daal dañoo koo tàmbaliwaat nag ñooñu sax dañ leen war a jëlee nag ci biir parti bi Guy Marius Sagna colikaay bii di waa Grand Place moo ñu jox ay xibaaram nag mi ngi xamal ne ca kaso ba ñu ko tëj fa li nga xam ne de moom mooy ca camp pénal la daal di euh, bind nag jëmale ko ci képp koo xam ne tey jii da ngay ruumanaat ak i négocier ngir ñu daal di ko fay génne moom moomu di Guy Marius Sagna di xamle ne loolu du ko nangu tey du ko nangu ëllëg laas yéeni kaay tey jii di ñëwaat ci kàddu yi nga xam ne Souleymane Téliko te mu daal di jiite Union des magistrats du Sénégal daal dina koy fësal jëmale ko sax ci li nga xam ne nag moom mooy rapport Cour des comptes wante it yenn ci ay jafe-jafe yi nga xam ne nag ñi di magistrat yi ñoo ngi koy jànkonteel wàllu wér gi yaram dañ ciy jukki ak julikaay bii di Le Soleil ma ngay ñëwaat ci feebar bi di épilepsie si tey jii nag suñu naataango yi daal di ciy seq waxtaan ak professeur Moustapha Ndiaye bu service de neurologie ca CHU de Fann moom nag di ñëwaat ci wàllu feebar boobu di xamle ne mën nañu ko faj ba mu wér péng nekk nag ak feebar boo xam ne daal ñu bëri dañuy foog ne wàllu rab da cee rax moom nag daal di ne xam ne ne loolu yëpp amul feebaru épilepsie war nañ kaa mun a faj te it ma ngay wax sax naka la ñuy war a nekkee ak képp ku am feebar boobu ngir war ko cee mën jàppale Libération moom mooy ñëwaat nag ci kii di Martin moom mi nga xam ne nag dañu ko joxoñoñ baaraamu tuuma ne da doon sàkku ay xale yu ndaw ca AS Dakar di ñu xamal ne moom fu mu nekk ni sax caabi féete na ko gannaaw wante dafa amaat yeneen ñetti xale yoo xam ne daal daal dina ñuy ñëwaat nag joxoñ ko baaraamu tuuma ñooñu ñëpp nag enquêteurs yi ñu ngi doon waxtaan ak ñoom te ay xale yu ndaw lañu yu am ci lu tolloo fukki at ak ñett jàpp fukki at ak juróom-ñaar wala tàggat yaram nañu mi nga xam ne nag démb daal dinañu koy ràññee eh, ci jongante bi nga xam ne nag équipe mi ngi ko doon amal ak waa Liverpool suñu naataango yi di ñu xamal ne moom lu weesu doublé ak tamit passe décisive bi nga xam ne moom la daal di amal eh, démb moom moomu nag di Ismaïla Sarr daal dinay làq jant bi ñu ci mel ni eh, Sadio Mané ak tamit Mohamed Salah ci wàllu lamb jolikaay bii di suñu lamb tey ji nag di ñëwaat ci jaar jaaru Balla Gaye numéro 2 fukki at ak juróom ginnaaw ba mu tàmbalee nag ci arène bi moom moomu nag di Balla Gaye numéro 2 di ñëwaat ci mbégte ga ci arène bi tamit déception yu mu ci am ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ko war lépp nag la ñu tey jii ci biir culikaay bii di sunu làmb lii moo nekkoon ba yi li gën a fës ci biir culikaay jii ñu leen di ñaanal njaxturu bës ak jawam